saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass ak jàngat bu yaatu ba sunu làmb def ca moom gannaaw ba ñu xaymaa ñaataate ko dese ci làmb ak ban saison ci la Gris Bordeaux di dem retraite loolee tax na sunu làmb ñëw ci moom ak la ko war ci làmb ji moom Gris Bordeaux ci yoon saison 2025 2026 ci la nar a tekki ngémbam lem ay bagaasam ba mu jekki jébbal ko waa làmb ña ko faloon président mu ko tabboon troisième ci loolee moo waral sunu làmb ne ñetti mbir yi daal mooy mbiri Gris Bordeaux guddi yi ba ca njëkk mooy faaw mu nekk roi des arènes ndax Fass soxla na ko moom Gris Bordeaux soxla na ko te képp kuy entourage soxla nga ko li tewoon sunu papa Mbaye Guèye tewoon Moustapha Guèye loolee Gris Bordeaux da ko war a ba Sénégal dalee pratiquer làmb ba léegi ni amagul benn mbëru Fass bu mës nekk roi des arènes Fass mës ta doon roi des arènes da koy dégg rek loolee war naa jël revanche leeral digganteem ak Balla Gaye 2 ba mu leer ñetteel ba mooy li Modou Lo def Balla Gaye 2 def ko moom da koo war a def Gris Bordeaux faaw mu tàllal loxo ay rakam jox leen sens ni ko Modou Lo defee digganteem ak Ama Baldé Balla Gaye 2 di ko waaj def digganteem ak Boy Niang la ko Gris Bordeaux war a defee journal ba xam le moom le troisième tigre de Fass ñett mbir yooyee daal moom moo koy xaar ci làmb ji bu ko réaliser doog ko dooleem defal ko bagage tuutee ko dese woon mu dugg cour des grands rëg-rëg ñëw suqi ay laafam ba ko rëg-rëg daane en 2018 ba léegi Elton amaatagul combat mbooleem jaloore yim fi def yépp teewut guddi yi combat da koy të journal ba xamle mooy moo fi freiné Youssou Ndour freiné fi Yékini Junior freiné fi Souley Top rax ca doole mu daan Bismi Ndoye daan Tyson 2 jamono joojee ñu ngi jortu ne Elton dana dugg cour des grands jël na ci sunu lamb indi ay leeral ci kàddu yi biram Paate Njaay yëkkati woon démb ci sunu làmb moom président écurie Fass boobee la mu xamle mooy ñun ay lobby sunu yoon nekku ci Fass dugut ci lobby mësta bokk ci lobby man Abbas musuma ànd ak kenn ngir Alioune Sarr jóge fi musuma def association kenn musuma ànd ak kenn musuma see waxtaan ak kenn man kay li may na bu ma ci dara mooy làmb ji amel na njukkal Alioune Sarr dañ ko war a taxaw ngir mu àggale mandaam ci jàmm ak salaam man gawma liggéey ak nit l toll ci ñaar fukki at di ko encouragé xëy xëy ne na fi jóge bu ñuy def contre Alioune Sarr te musuñoo waxtaan dënk ne Alioune Sarr na fi jóge mbooleem ñiy jóg naan Alioune ñoom la engagé fa ñuy jeexale mooy ci Sam Thiaw sa xiir ma journal ba jàpp ne 2006 ba léegi mu ngi topp Modou roi des arènes saison ba léegi ni Ama Baldé mu ngi topp Modou Lo bëgg a bëre ak moom mën nañ ne li ëpp ci ay mébétam antu ndax combat ba taxaw na saison bi lañ ko fas yéene woon a amal waaye ba léegi revanche la soxla revanche ba mooy 2006 ca Parcelles Assainies la ñu bëre woon final Modou daan ko moo waral Ama Baldé am ñaari objectif ci Modou ba ca njëkk mooy daan a fas